alors éco entreprise euh, Safi tey nag ñuy waxtaanee ah jafe-jafe yi nga xamante ne mais Safi mag sa sa verre ak sama verre ban moo dàkk. yow yaa dàkkale. maa dàkkale. Mhm. tey moom fair play rek. da ngay wujjeeg man ba tey wala danga bàyyi. non maa ngi wujje ba léegi. ah yaa ngi wujje ba tey mais fair play parce que dafa. dama bëgg quoi waaw ah, d' kon suba damay indiwaat yeneen ñu gën a ñaang. waaw <laughs> <laughs> alors tey euh, Safi mu mel ni tam bu am solo nga naax a waxtaanee muy jafe-jafe yi nga xamante ni euh, liggéeykat yu nekk ca fële ca Dakar naaf ñu ngi koy dund xanaa rek ñu bàyyi la ak euh, monsieur daal di koy faram fàccee. d'accord balaa may euh, ñëwaat si thème bi ma nuyu monsieur Mbacke rek donc ak lim ma dikk ma ne ko monsieur Mbacke maa ngi lay nuyu. ak lim ma dikk euh, voilà moo tax xam ma fair play comme ça donc euh, ñuy waxtaanee Dakarnave ñu si dalal secrétaire général bu syndicat de SATNAV di syndicat autonome des travailleurs des chantiers navals waaye balaa ñoo wax si bi lépp syndicat nañ ñëw déjà si Dakarnave lan mooy Dakarnave ak lan mooy liggéeyam. waaw jërëjëf Safiatou donc euh, di delluwaat nuyuwaat ñëpp donc euh, di leen remercier aussi si invitation bi ngeen ñu invité jox ñu occasion aujourd'hui pour ñu mën a wax suñuy mébét mhm. ak suñuy njàqare donc bu ñu waxee dakaar Nave Dakar Nave c'est un chantier de réparation navale mhm. donc euh, réparation naval bu ñu ko waxee nag mooy lépp lu jëm soo xam mooy réparation yi bateau yi mhm. moo xam ay bato pétrolier la moo xam <clears throat> ay bato de pêche la moo xam ay barge la wala ay plateforme pétrolière wala yu mel noonu mm-hmm. donc comme ni ko oto di amee nga xam ni bu amee problème mécanique wala électrique wala tôlerie wala leneen lu mën doon day dem si garage ba ñu réparé ko bu dee chantier naval tamit noonu la mel si bato yi dans un domaine plus compliqué quand mais noonu la mel ba tey à chaque fois bu ñu amee problème mécanique problème électricité problème de chaudronnerie de tuyauterie entre autres dañuy ñëw chantier naval pour def leur réparation. Mm-hmm. mais aussi réglementairement aussi dañuy de temps en temps dañu war dem aussi chantier naval pour def yenn classification yi wala def yenn travaux yi. loolu c'est une obligation. Mm-hmm. ba mi mel ni tey jii nii nga yor sa oto chaque année war nga dem visite technique ñu xool saytu ndax oto bi baax na wala baaxul loolu tamit dafa am ci bato yi. donc chantier naval en grosso modo daal loolu lay loolu lay. ndax liggéey bi yomb na. du liggéey bu yomb mais yomb na yombul la ñuy wax. lu tax mu wax na yomb na yombul mooy que ni euh, un chantier naval dafa regrouper ay compétences yu yu bëri des compétences techniques yu bëri. lu su mel ni mécanique navale lu su mel ni chaudronnerie lu su mel ni tuyauterie lu su mel ni soudage lu su mel ni menuiserie traitement des coques dafa bëri donc activités yu am foofu autour donc bu si nekk tamit laaj une formation accrue boo xam ne da ngay génn école une formation de base boo xam ne da ngay génn école léegi nag fii au Sénégal amuñu une école boo xam ne dañuy former si wa mbir boobu noonu. Mm-hmm. mais li si ëpp solo daal mooy nga am une formation de base boo xam ne da ngay génn si école yi ne fii mën a nekk ay ESP mën a nekk ay G15 wala yu mel noonu boo ñëwee nag nga ñoŋal. Mm-hmm. sa sa sa sa say say compétence si si si si entreprise. Mm-hmm. parce que amuñu yeneen école yoo xam ne dañuy def. typiquement euh, naval amu fi mm-hmm. mais nag boo ñëwee foofu noonu am na tey jii encadrement bu lay encadré ba nga gën a mën a def sa liggéey su nu mu waree muy si wàllum mécanique muy si wàllum électricité ak euh, yeneen yeneen wàll yi. d'accord waaye euh, seen liggéey boobu mu mel ni si jamono ji da ngeen si am ay jafe-jafe. waaw am nañu jafe-jafe. muy lan parce que jafe-jafe yi ñu am mooy que ni ku ne xam na ni Dakar Nav concession la dakaar Nav tey jii nii bu nu waxee chantier naval yi. patrimoine national la état du Sénégal moo ko moom mu nekkoon Dakar Marine mais Dakar Marine demoon fayit demoon à terre daanu ñun ñëpp xamoon nañ li ko daaneel parce que boobu vraiment laisser-aller bu dafa bëri woon politiciens yi dugal seen loxo ba kër gi nërmeelu bi mu nërmeeloo nag ñu xool kan moo ko war a mën a joyanti si loolu la ñu defoon benn appel d'offres international groupe LISNAV muy les portugais ñu ñëw jël ko bi ñu ñëwee jël ko en 99 na ñoom ñoo fi nekkoon di doxal ñu amoon benn contrat de concession sur 25 ans donc mu commencé 99 war a jeex en juin 2024. léegi nag ñun suñu njàqare mooy lan suñu njàqare mooy que ni suñu contrat li si des matutu sax 6 mois sur 25 ans te boobu ba léegi les autorités mën ñu wax dara lu leer si suñu avenir mm-hmm. lu tax loolu. lan moo waral loolu lan la ñuy làq si ginnaaw xawuñu ko ñun les travailleurs de Dakarnave ñun lu ñu intéressé mooy kan yi dañu am suñu gagne-pain di fa liggéey mu néew mu bëri fa ñu nekk di fa liggéey am na ñu ay mbibët am nañu ay revendications yoo xam ne teg nañu ko sur la table mais ba léegi mën ñu si avancer ndax lan xamoo ma kan mooy nekk sa interlocuteur ñun def nañu suñu révision d'accord euh, d'établissement bi nga xam ne moo tënk lépp lu jëm suñuy mëbët nga xam ni moo tey tënk lu jëm si salaire yi moo tënk lu jëm si habitat moo tënk lu bari yoo xam ne moom moo ñuy lie ak suñu patronat. Mm-hmm. bi ñu defee euh, euh, suñu révision accord établissement moom ba pare dañu ko jébbal suñu kilifa. Mm-hmm. pour ñu mën a toog waxtaan xool naka la ñuy améliorer condition travailleur travailleur Dakarnave mais ci loolu suñuy njaatige xamal ni ñu. ah ñun kon mënaguñoo avancer si dara parce que état du Sénégal si boppam waxaguñu dara lu leer xamuñ ñun ñooy toog xamuñ ñun ñooy continuer. maanaam foofu leeral lan ma maanaam yéen da naa war a dem beneen équipe ñëw wala Dakarnave si boppam moom la di suut. donc pour l'instant yi kenn mën la wax ni. Mhm. Dakarnave mooy toog wala beneen. beneen entreprise mooy ñëw mhm. donc loolu moo gën a indil njàqare. Mhm. parce que tey fi yi à six mois waroon na am appel d'offres boo xam ne avancé woon na ba nga xam ne tey jii ñiy soumissionné soumissionné nañu su ko defee ñun ñu mën a xam suñu interlocuteur nan lay doon ñun tamit les travailleurs yi nga xam ne ñoo xam liggéey bi ñu mën a xool tamit bokk ci processus bi nga xam ni mooy renouvellement concession bi dañ su war a bokk ñoo xam suñuy suñuy suñuy suñuy suñuy suñuy suñuy matt yi ne suñuy lal ñun ñoo say tëdd mm-hmm. donc ñun dañu war a boole processus boobu noonu ba léegi ñu ngi wax appel d'offre mais gisaguñu appel cahier de charge xamuñu am na amul wala ñu koy élaborer tamit booloo ñu si les travailleurs alors que les travailleurs mooy les war a nekk euh, le principal concerné les travailleurs donc loolu moo gën a indi suñu sunu sunu njàqare mm-hmm. parce que bu ñu xoolee tey jii nii à six mois de euh, euh, de la fin du contrat de concession ba lié état du Sénégal ak Dakar Ndaw mm-hmm. ak li fiy xew si diggante bi xam à savoir les élections présidentielle entre autres mën na am deuxième tour kenn xamul donc yooyu yëpp day doon ay gàllankoor yoo xam ni mën nañu tënk ba ba ñu dem sa cappaandaw ga te du am kuy moo xam dañuy reconduire ki fi nekk wala moo xam keneen day ñëw boobaa du am le temps matériel pour mën a def li war si si si si contrat boobu te su loolu amee ñun travailleur li ñuy bañ mooy que ñu def ko benn benn marché boo xam ne dañ koy def taf taf yëngal fii taf fële na le ko defee après ñenn ñi benn minorité gañe si lañu si gañe dem seen yoon travail des fi un an après wala six mois après kër gi demaat fayit donc ñun loolu la ñuy bañ moo tax depuis plus de deux ans ñuy génn si médias yi di di di alerté mais dafa mel ni autorités yi dégguñu ba léegi. mooy mooy li ma doon wax si léegi dafa mel ni patt pataaralu euh, njiitum réew mi wala gouvernement bi moom ngeen di ñaawlu. donc mën nañu wax mën nañu wax lu mel noonu parce que suñu ministère de tutelle. Euh, Pape Saliou euh, Sagna Pape mhm. Sagna Mbaye donc ministère de la pêche et de l'économie maritime mosoon nañu invité à la CIRN waxoon nañu dañuy intégré ci processus bi waxoon nañu tamit dañu invité à chaque euh, trimestre ñu man toog di waxtaan ci processus bi mhm. mais bu ñu waxee loolu c'était juste benn tàngal lu ñu seexaloon rek mhm. parce que après defaatoo ci dara dara defaatu ko ci donc ñu gis ni kon ñu yen ñuy li ñuy wax gëmuñu ko dañu nekk ci yeneen yoo xam ni c'est pour l'intérêt des travailleurs parce que bu nekkoon pour l'intérêt des travailleurs bu ñu waxee lool noonu chaque trois mois daañu gisante waat suñu gisante waatee ñu man teg suñuy mbëbët nit ñun kat travailleurs Dakarnave lii mooy suñu problème ñu mën ko intégrer dans le cahier de charge. mais loolu gisuñu ko donc ñu mën a wax ni kon ñii dañuy foowee. suñu beneen tuteur de de bu xam muy gën a jege administratif muy la sirne le DG de la sirne temps yii si ginnaaw invité woon nañu ñu doon loo xam ne rafetlu nañ ko. mais bi ñu demee foofu noonu dafa wax ni dafa tawat. donc ñu nangul ko loolu. mais ñu ngi xaaraat invitation ba léegi moom it. France d'accord léegi yéen ngir bëgg ngeen ngir am li ngeen bëgg est-ce que da ngeen tëral ak plan d'action. waaw plan d'action yi. wala àggagoo leen fa. ay plan d'action am na. parce que tey jii nii plan d'action yi commencé nañu ko déroulé bu yàgg. Mhm. moo ñu permettre sax tey jii nii lu mel ne ministre bi wala lu mel ni euh, DG Sirno wala ñeneen ñi dégguñu. Mhm. parce que dañu njëkk def ay sorti médiatiques mhm. pour yuuxu pour ñu dégg ñu parce que ñun tamit comme ñu ko defee fii rek la voix des sans voix comme amuñu yenn baat yu yu kawe yi mhm. ñu dem si médias yi jéebaane jéebaane mi nag dara lu ñu xam ne ay sénégalais ñu ngi liggéey quelque part mhm. plus de trois cents travailleurs permanents ñu ngi liggéey foofu noonu ay soutre traitants plus de cinquante entreprises PME PMI ñu ngi liggéey foofu noonu tous des sénégalais ay prestataires ñi ngi liggéey foofu noonu ay fournisseurs ñi ngi liggéey foofu ñun ñëpp booleel boole ça fait plus de 1000 personnes yoo xam ne chaque jour ñi xëy di liggéey foofu noonu. Mm-hmm. te bu ñu seetaanee lii. fa nuy jëm du baax. Mm-hmm. ndax dañuy dem ba toll si cappaandaw ga ñu taf tafal jaxase carte gi xool ku leen neex teg fa wala koo xam ne amul capacité bi teg ko fi ko defee nag suñu kër ndërmeelu. ba fan ngeen appal seen xeex. suñu xeex moom amul fenn fu ñu conditions yi kat nii lay demee. kii mooy repreneur bi x la wala y comme mën a doon. ñun daal suñu intérêt mooy que ni. suñu revendication yi ñu teg si kaw table yi nga xam ne mooy suñu accord d'établissement nga xam ne def nañu révision ba teg ko. def suñu statut cadre bi nga xam ne def nañu ko réviser ko ba teg ko képp kuy ñëw. nga mën si statut yow xam ni kat lii mooy revendication des travailleurs de Dakar naa ko ñu boole ko si cahier de charge bi appliqué ko. <coughs> Euh, yàgg ngeen jàmbat yenn seen contrat de concession bi. ngeen ne baaxul. ñu bëggoon xam lan moo tax benn baaxul. ak lu bees li nga xam ne li ngeen ñëw njort ngeen ba léegi si ñëw ñu ko lan ngeen bëgg justement si contrat de concession bi. Mhm. bu ne contrat de concession loolu liéwul travailleurs yi loolu dafa lié patronat bi. ak état du Sénégal loolu état du Sénégal moo koy liggéeyam te ndax baax na wala baaxul ñoom ñoo ko joxoon ñi fi nekk. parce que dama gis doon gis seen seen grand bi ñu fi nekkoon Omar Mbaye di ko doon dénoncé naan affaire bi baaxul parce que travailleurs yi duñ ci peut-être accord d'établissement la lay wax. Mm-hmm. mais contrat de concession loolu mi ngi lié patronat. xam nañu patron ak état du Sénégal ñoom ñoom ñaar ñooy discuter loolu. ñun lu ñu lié ak suñu patronat mooy l' mm-hmm. accord d' établissement. accord d' établissement boobu moom laa lay wax léegi nii. def nañu révision bi. ba nga xam ni parce que accord boo xam ne ñu ko defoon depuis 2007 wala yu mel noonu ak fi ñu toll nii def naa ni bokkatul en 2024. foog am na ay évolution sur les prix sur les denrées et tout ça donc loolu dañ ko war a harmoniser waat ba nekkaat au tempo. moo tax ñu defaat harmonisation boobu noonu def révision accord d'établissement bi pour que rek les travailleurs mën a amaat benn niveau de vie bu xaw a tane donc bu dee bu dee bu dee euh, contrat de concession loolu mu ngi lii état du Sénégal moom mooy wax ni si terme yi laa koy joxe kii ñëw. dañu dégg seen waa ji dina dafa bëggoon yéen au moins ngir war ngeen nekk am action si biir à l'époque Omar Ba ko doon wax ne foog ngeen am action ci société bi pour ngeen am droit de regard ci nu muy fonctionner. voilà loolu c'est le moment bu mu koy wax noonu peut-être que c'était pas le moment mais maintenant c'est parce que de concession bi. si contrat de bi ñun suñu revendication loolu bokk na si mooy au moins le mu am si si capital bi de 5 à 10 pour cent boo xam ne personnel bi la koy am. mais loolu yëpp pour mu mën a am foog ñun ñu boole su si processus boobu noonu. parce que bu ñu si booleewul rek dañuy dem taf tafal def la leen neex. du ñu lan moo si intérêt travailleurs yi su boobaa aussi. mais ana seen njiit dans tout ça seen directeur moom ban taxawaay la am ci wala yéen a bokk même problème bi ngeen di dund. donc suñu directeur loolu patronat la. ñoom la lijjanti peut ñu ngi koy lijjanti ak état du Sénégal. waaye ñun. ñu li ñu war lijjanti ak suñu suñuy njiit mooy euh, accord d'établissement moo ñu lié ak suñu patronat. donc accord d'établissement ñu def nañu suñu révision ba pare. ba jox ko moom. mu ngi koy saytu. mais dafa ñu wax ni mënu avancer si yenn yi parce que pour mu mën ko def te tey jii nii. dafa demander mu mën ko amortir dans le temps alors que le contrat jeex na pour mu mën ko def fa mu am muy continuer wala déet c'est de bonne guerre ñun tamit tooguñu xaka ñu toog rek bàyyi noonu ba kët ni jon dañuy ngarale suñuy tànk mhm. li ñu war ak suñuy patronat ñu ngi koy def mooy kon accord établissement ak lépp lu ñu war wax en ñu ngi koy wax foofu mais tamit on est des sénégalais mhm. lépp lu ñu war ak suñu autorité aussi daañu fa dem ba jeex képp ku ñu war rencontrer suñu autorité aussi ñu dem fa wax leen ni ah ñun kat ñu mooy suñuy problème lii moo koy saafara lii la bëggoon donc loolu si ci ci combat boobu la si nekk ci loolu aussi j'en profite pour lancer un appel à monsieur le premier ministre monsieur Amadou Ba à monsieur le président de la République aussi son excellence monsieur Macky Sall ñu gën a penché wu ci le dossier Dakar Naaw parce que dafa bëri ay su dugg yoo xam ne dafa dafa yàq lu bëri muy lan parce que ñu bëri wax nañ ci ay wax yoo xam ne peut-être que ni du loo xam ne mooy gën pour les Sénégalais parce que ña fa nekk ñoo xam la fa mais da ngay gis parfois si yenn kii yi ñu wax faut expertise locale bi wala yooyu noonu expertise locale na am mais expertise locale ñun egg guñu si dimension boobu noonu. parce que chantier naval dafa xaw a compliqué. du rek da ngay gis gars yi liggéey fii mécanique chaudronnerie tout et tout ça rek nga ni noonu la. mais li gaal yi ngay liggéey noonu mais les bateaux là dafa am fu muy jóge te au niveau international. Mhm. loolu foog nga am benn carnet d'adresse. d'accord bu lay international bu lay permettre ngay mën a rabattre ces navires là vers le Sénégal te loolu mooy liggéeyu un peu concessionnaires yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw lu mel ni groupe Lézina waaye yooyu noonu am ñu un euh, renommée internationale si si si si wàllum réparation navale ñu mën ñu rabaatu ces navires là vers le Sénégal pour ñuy def liggéey bu mucc ay tey jii nii le chantier est bondé de de de bateaux bateaux yaayu foofu noonu bëri ba dee ñu ngi liggéey y a kon donc les travailleurs war nañ mën a gis seen bopp si loolu noonu. ñetti sûr ñaata liggéeykat ñoo fa nekk. ñu fay liggéey fi mu toll nii toll na si trois cent et quelques permanents mm-hmm. donc y' a des euh, journaliers aussi yaa a des euh, sous-traitants y' a des prestataires y' a aussi des sous-traitants. Mm-hmm. donc yooyu bu ko bu ko boolee daal en dina doon lu mat mille travailleurs yoo xam ne dañ fay xëy chaque jour dafa daan seen doole ay ay sénégalais bon temps lañu. Mm-hmm. Euh, est-ce que tey amu leen benn comme yaa ngi wax na déjà nekk ngeen si benn dilemme moment bii fekk ñuy ñuy agité euh, révision convention des auxiliaires du transport maritime bi nga xam ne mu ngi daté de 1956 tey nii ngeen euh, ngeen bëgg d'abord ñu régler problème accord d'établissement pour yokk payoor yi moment boobu tam ñu réviser bëgg réviser convention est-ce que fu mu toll nii affaire bi du andi jaxasoo seen bi seen non non non du indi jaxasoo parce que ñun bokkuñu loolu dara un chantier naval ak transport maritime dafa naan dafa xaw a wuute. Mhm. ñun am na beneen xeex bu ñu doon xeex lu jëm si wàllu boobu noonu mais bokkul suñu waxee accord d'établissement loolu moo ñu lié wax naa sànq c'est en interne. mais am na dañu bokk convention mécanique générale. la ñu ah, bokk convention mécanique générale la ñu bokk léegi si convention mécanique générale générale boobu noonu baaxul pour ñun moo tax ñu gën a accentué wu pour mën a gagner du temps ñu gën a wu si <coughs> l'accord d'établissement parce que accord d'établissement bi mën na gën a baax sa convention. c'est vrai moo tax ñu gën a concentré foofu mais ñu ngi doon def beneen processus boo xam ne dañu bëggoon am benn convention mec euh, navale mais loolu comme sa prend un peu du temps moo tax ñu gën a concentré wu un peu sur l' accord d' donc si tënk rek lan ngeen di xaar euh, si euh, si Macky Sall ak nguuram pour que nag ñu sukkaliwaat lii di Dakarnave ñu liggéeykat yi mën a xam carrément ñoom lan lañ fan nañ war a mën a jëm ëllëg. waaw li ñuy xaar suñu autorité daal mooy. nañu xam ni ay sénégalais ñi ngi foofu di liggéey seen liggéey li mu waree mu néew mu bëri masuñu am retard de salaire mu néew mu bëri aussi am nañu certain avantage bien vrai que nag yu bari des na yoo xam ne ñi ngi siy xeex pour mu am te lool pour mu am foog ñu def rek ñu penché aussi accord d'établissement bi ñu ñaan suñu autorité mooy koy processus bii ñu jëm nii nga xam ne mooy contrat de concession bi moo xam ne dañu ko renouveler wala ñeneen lañ koy jox ñu boole si les travailleurs de Dakarnave su ko defee ñoom tey dëxëñ seeni mbëbët si biir cahier de charge boobu noonu su ko defee ñun ñëpp tamit ñu man see am suñuy suñuy suñuy suñuy suñu li li li séentu en tout cas. Mm-hmm. à savoir ay euh, habitat social. Mm-hmm. à savoir ñu bokk si capital boobu noonu. à savoir aussi suñu accord d'établissement bi aussi ñu mm-hmm. dëxëñaale ko si biir. tey jii boo doon jaay Dakar Nav côté marketing lan mooy particularité par rapport ak yeneen entreprise yi. xam nga chantier naval dafa doon loo xam ne fii nii bëriw fi. benn la fi. au Sénégal. donc boo ko doon wax da ngay wax dans la sous-région. wala au niveau international ngay wax quoi mhm. te dans la sous-région on occupe une place très importante boo xam ne am nañu ko fii nii dafa naa ne am nañu si ay concurrence fii Côte d'Ivoire ay Cap-Vert wala yooyu noonu mais Dakar naa fi mu nii mooy meilleure entreprise boo xam ne tey jii nii si wàllum réparation navale en Afrique de l'Ouest kooku moom amul sax dem te ñëw. d'accord moom liggéey boo Le risque zéro n'existe pas. Je parle en connaissance de cause parce que je suis QSSE, je suis responsable euh, sécurité de Dakar naag. donc boo boo loo loo gis am na risque mais nag ñun on fait tout pour appréhender ces risques là. Hmm. on est une entreprise certifiée mille 45001 euh, 2018 donc yaakaar naa ni ku ko dem ba certifié wu. Hmm. romb nga sax réglementation en matière de santé sécurité au travail. Hmm. am na solo. am ko bu baax a baax euh, Safi. Mhm. xanaa rek ñu bàyyi la daal tàggatoo. peut bu fekkee ne am na lu mu si yokk. waaw li si yokk daal leen rek la ñun moom benn bu rek la ñu am. Mhm. mooy ngir ngir yàlla war a suur yi. donc euh, autorité yi nañu xam ni ay travailleurs ñi ngi nekk si njàqare mhm. te ñoom rek ñoo leen si mën a génnee. te leen siy génnee mooy ñu boole leen si si si fan yi noce ak di nocc. donc te loolu ñu si siy woo son excellence monsieur le. président de la république Macky Sall. ak son premier ministre euh, monsieur Ba. donc ñun loolu daal la ñu am lu ñuy kii nii pour l'instant. Mm-hmm. léegi nag ñu si dara loo xam ni teg nañ ko de côté pour wax ni lii duñ ko def. lekk lu ñu mën a def. pour ñu dégg ñu. foofu laa la doon laaj léegi te leeraloo. maanaam fan ngeen appal seen xeex. mun naa la wax sànq nee la xeex bi moom. Mm-hmm. bañ ñu si dara ba fi ba sa cëppaandaw ko mooy kalal mhm. xeex bi lépp lu mu laaj syndicalement dañ ko def lépp lu mu laaj pour génn yëngu-yëngal mhm. dañu ko def aussi voilà mi ngi noonu merci beaucoup on espère que balaa boobu loolu yëpp di am dinañ ko daal di résoudre incha allah donc Safi merci beaucoup. merci à vous Awa Kondé mon invité Abass Fall il s'agit secrétaire euh, général de SATNAV syndicat euh, des travailleurs euh, des chantiers navals ñun dalaloon ko di waxtaanee Dakarnave si jafe-jafe yi nga xamante ne moom la nekk nii wax na ko sànq ni seen contral bi nga xamante ne moom moo lii Dakarnave ak état du Sénégal juin la war a jeex donc. moo tax boobu ba léegi ñuy artu ñuy interpellé waat tamit ba léegi état du Sénégal rawatina kii di président de la République Macky Sall nga xamante ne mu ngi yëngu si xëyu ndaw ñi di inauguré ay BRT ay train express régional euh, tamit bu mu seetaan rek waaye ñi nga xamante ne ñu ngi euh, di am seen liggéey tamit ñu koy ñàkk te tamit ñu doon ay pères et mères de famille. voilà muy lu am solo Safi Frela merci beaucoup dañuy daal jëli conscience et action léegi